mbokki internetu improtive TV mbokk yi Adji Sarr nee nañ da doon taal boppam di jéem a xaru Adji Sarr lan moo tax muy xaru pourtant am na sew-sew bu ci nekk tey saalum saalum bi ne ma kaay ma wax la ci nee na ma ku ma àndil dërëm ma seetal la wax la li nekk sa àdduna lépp ku ma àndil dërëm ma wax la ki nekk président 2024 mbokk mbokki kon dërëm yomb na àndil leen ko dërëm Serigne Gobe sekk saalum saalum combat Modou Lo ak ki nga xamante mooy amaa Baldé bëgg naa nga wax ñu làmb ji ni muy demee kii nekk président Sénégal 2024 bëgg naa tey nga leeral ko askan wi mbokk yi jëmm ji soo ko joxee dërëm mu lay wax ba nga tàmbalee ba na nga màggee ñaata jabar nga war a am wala doo takk wala da ngay takk bu fekkee da ngay réussir da koy wax bu fekkee doo réussir mu wax la ko kon mbokk yi jëmm ji secret yi mu am ci dërëm bëri na sëñ Gobe sekk Saalum Saalum bi. gis ngeen ko nag ni mu solo Saalum Saalum bi géej na ci réew mi mais nañ ko bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soo ko waxtaanee li xew ci dëkk bi sëñ Gobe ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah. alhamdulilahi rabbil alamina alhamdulillah alhamdulilahi hamdi alhamdulilahi hamdan yuwaafi nihmahu yukaafi masido wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad salallahu alayhi wa wa ala alihi wa sahbi wa sallam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di ñaan yàlla képp ku dékklu émission bi yàlla na nga si jëlee njëriñ dégg gëj naa fi ñëw naa ku bëgg a jëriñu déglul ngóobe bi nga daan dékk micro ak tay bi yokku na te Abdou Seck nee na ma loo wax mu jëriñu mooy sama baay sama woyu jur nee na ma loo wax loo bëgg a wax waxal te loo wax uh, faj nit te billaahi bisimilah. Euh, sëñ euh, tey faj mi bëgg naa njëkk ci mais dërëm nga ma ku ma ko andil ma wax la li nekk ci sa dund wax la loo xamante ni mosoo toog ak sëriñ mu wax la ko dërëm da nga ci am secret. alhamdulilah euh, man maa toog na la. ku ñëw ba toog sama kanam. andil ma dërëm. kerek ba nga juddoo ba kerek boo war a faatu loo war a def danaa la ko wax dërëm laala laaj boo ko indee teg ko ñi nga xam ne dëkk ne nag man fii xam neen ko ñëw andil ma dërëm ma wax la loo mastu dégg waaw te képp ku may woo téléphone bu la neexee bul coupé soo ma woowee lépp loo ne si yow su ma jotee sa tur ak sa tur way jur ak at yi nga am amatul lu may looy nëbbu si yow te duma la ko wax bu fekkee ne nit ki sax ñëw na su ko neexee mu déglu ma ma seetal ko bu ma ko gisul bu ma jox dara ndax bu dee woote téléphone faaw nga dugalal ma dara su la neexee nga déglu ma ba ma la seetal ba noppi dinaa la wax loo mastu dégg man ab saalum saalum la xamuma waxantu waaye dinaa la wax lu wér péng seet moom duhul loo xam ne nii dama koy làmbatu ndax lu ma judduwaale la waaw doo mosoo dox ba ne ngóobe sekk daf ma doon wax di làmbat lu leer nañ ñi rek ndax lu ma la wax lu ne booy booy dox di si gis te li la passé dinaa la wax lu li la ko daloon li koy dindi lii sa gàllankoor lan mooy sa sarax lan moo koy euh, lan mooy defar sa biddiw lan mooy leeral say mbir wax la loo xam ne boo ko dëkkee di ko def doo am benn gàllankoor te kéem ku ma si woo da si xam dara bisimilah. Euh, sëñ Ngobé Seck ngay Saalum Saalum dëkk ci xolu Saalum nga dem am na cangaay loo xamante ni cangaayal cosaan la mooy cangaayal saalum saalum cangaayal saalum saalum loolu lan lay def. alhamdulilah dafa nekk cangaay goo xam ne nii mosuma ci wax ndax yàlla dafa dogal ne dafa xam xeeti mbir yoo xam ne da daan am doole lool est-ce que xam nga ne man jamono jii ma toll ku ma ñëw di ñaanal dama lay garantal su la neexee nga téye li nga yor ba gis soog a fay barke alquraani karim waaye nag. waaw bëgguma kenn wor ma du ma def kenn dara de waaye ku ma wor yaay delsi ta boo delsee du ma la du neex a defar de ndax man moom li may liggéey xam naa ko uh-huh. man naa laa garantal li may def waaye boo dof dof loo naan kii kan nangama nangam xaaral ma jaar yoon bii da nga bëgg mu defarwaat mu tëla waaye ku ñëw cangatu saalum góog ma defal la ko nga mos ko weer wi yëgoo sa bopp yokkute yokkute yokkute ba yëg ma bàyyi mm-hmm. te man su la xoolalee bu fekkee sa mbir kurus a koy defar maa la koy wax wax ko wax la kan moo la ko mën a defaral ban mbindeef moo la mën a lëggeel kurus ba nga jëriñu ndax am na loo xam ne maa koy faj am loo xam ne du ko faj ndax du ne sëriñ bu nekk moo mën a taxal ñëpp kenn ku ne xam na sëriñam te man bu ma la seetalee dëgg dëgg dëgg maa lay wax kii sa sëriñ ak kan moo koy defar waaye dama ne la cangat ki ma koy jox ku ne dama naan la jëlal mos soo gisee sa bopp gën a la gën la góorgóorlu si daara ji boo dellusiwut sa ndigg moom ay rawaana koy rëqata da nga del si te boo ñëwee bu doon jar fukki dërëm da nga si def téeméer te doo ko jot sëñ Ngobe Seck Saalum Saalum dex ndox mi yaakaar naa am na ñoo xamante ni xalaat nañ ca leneen nga ne ma ndoxu dex ak ndoxu géej ak ndoxu teen am naa ci secret boo xamante ni ku mu laal sa yaram sa àdduna jaare fa jag kanaa xamoo cangatu caalum gi ngay wax sax du si jog du si da bokk te waaye maa ngi si am beneen secret boo xam ne nii ki ma ko sangee dalay aar dalay ubbi te da nga ubbeeku ubbeeku goo xam ne si kaw suuf maanaam gisatuma lu la mën a tëj ndax xam nga géej rek dañ daan wax ne loo yore yore gàllamkoor boo fa sangoo dalay dimbale dex waxi noppi dex dafa baax lool si ay mbir ndax euh, li fa li fa làmb lu fa mag ñi daan wax naan moo fa làmb dafa bëri moo tax bu dee bayra la mm-hmm. ak koo xam ne daa bëgg alal ju gaaw ma lëggee la ndoxu géej ndoxu dex ndoxu teen ndoxu robina ndoxu sam-sam boole ko def ko ni ma ko war a defee defal la cangaay mosal la si guddeel na la booy xëy da raayo billaahi bu doon commerçant nga boo xëyee taranguñ la woo ma na ma sëñ bi li nga joxe baaxut man maa la wax lii xam nga man nekkatuma fi naan nii ak nii man li ma yor dama koy garante te ku ñëw dama lay garantal boo gisut woowal dégg na ko kaay mu nga toog mu taalal ko micro na ko ngóobe moo ma jox gisuma sama bopp ah, man maa la ko wax mhm. képp ku ma ñaanal da si teg sa bët jaxaratan mhm. su fekkee toog naan waaye nag su ma ne la la ñaanal ngay incité da ngay sonna sa bopp mhm. man moom su ma ne la manuma ko rek manuma c'est bon nga noppalu waaye su ma ne la bismillah su la neexee nga toog déglu man maa la wax ne lépp lii sa jafe-jafe maa la koy toppal benn par benn alhamdulilah euh, gis naa ne seen zone boobu muy zone Ndoukoumane bi li ko jàppee euh, Kaffrine noonu jëm boori Mbirkilaan ba Maabo euh, sëriñ sa dëkk yàlla daf leen may ci xeetu nopp lan mooy seen secret ci nopp ba tey ku ngeen jàpp rek du rëcc. maanaam ñemee lëggéey xam lan moo war si lasaraar nga xam nan leen koy tëggee dégg man maa wax ne noob ki ma koy noobal ku ne ma pare naan la woowal ki ma la doon noobal baaxut fekkee danga maa joxoon jël ko waaw waaye ji nga képp koo xam ne lëggéeyal naa la nopp diggante boobu ku ko bëgg a yàqati faatu te yow sa jëmmi bopp yow mu ko lëggéeylu soo bëgg génn dootul yomb ndax dañ la takk-takk goo xam ne dootoo am jàmm waaye bu kenn woote di ko defloo ko du sa jabar mm-hmm. ndax dafa nekk noob yu tàng yoo xam ne nii képp ku koy deflu xamal ki nga koy deflu mm-hmm. man yoruma lëggéeyu xale xale laa de waaye dama yor mag moo xam ne mu sama gannaaw mm-hmm. su ma xëyee mu naan ma lii ak lii su nit ñëwee mu ne ma lii ak lii nit ñëw na ba tàyyi sama kër toog sama way toog mu naan ko sëñ góobi mii laa jàppante mu ne ko jàppanteel ak moom boo jàppanteel ak moom jàppante nga ak man kon magam a ngemb waaye dama ne saalum dafa amut caaxaan su ma ne la dama lay noobal dama lay noobal te su ma la xasee ba ne la dama lay noobal dem sa reenu guy ga wala sa doj wa wala sa jànj ba wala ma jël ñaari ginaar yi def li may def man bu amul ma bàyyi ñaan sama kurus gii dama koy dagg bàyyi te ku la si ku ma si woo ku ne toogal déglu ma ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah euh, ñu ñëw ci Saalum garab yi fa nekk garab yuy dund ak garab yi dee xeeti garab yi dund laa bëgg njëkk ci garab yi dund lan nga ci mën a liggéeyal nit ki mu jariñ ko alhamdulilah bu dee ubbeeku la dama ko si man bu dee kaaraange dama la si man dama ne la limal ngeeraan moo gën a gaaw si ubbeeku man maa ko wax taxam naa ko uh-huh. su ma la liggéeyalee ngeeraan Euh, liggéeyal la wasa sóor liggéeyal la sump bu sax si xorondam liggéeyal la kàdd booleel la ko nga di ko mos maanaam koo xam ne xëy nga mos ko toog waxtu xaalis dugg sa loxo waxuma la surne bi ba mu jeex de maanaam nga sangu ko sa yaram muus ba wow koŋ te gisoo yoonu xaalis wii ñëw xamal ne sangat gi baaxut maanaam dafa nekk xeeti cangat yoo xam ne ni ma koy wuti jee su noppee ba ma ko dëbb sunguf bi ku ma si compal ku ne sa mbir baax na man su ma la compalee demal rek def ci euh, ndox laal ci laal ci tuuti parfum bu dee da ngaa bëgg bayra maanaam yow danga nga am alal ba yaakaar ne ay junne laay jox man maanaam jamono jii ma toll guddi yi ma toll ki may lëggéeyal ku nekk lu ma la jox lu ne jàppal ne yow xam nga garante mm-hmm. ak su ma ne la nag maa ngi toog liggéey kurus jàppal ne yow sa mbir baax na waaye ji ma dama ne la garab moom bu ma si liggéey mm-hmm. euh, bu dee si wàllu ubbeeku la garab yi ma la limal noonu gaaw na ci lool lool lool lool mm-hmm. ndax bu dee ngeeraan la jamono joo dem ngeeraan day am xob naat lool te normal moo tax ngeeraan dafa gaaw si ubbeeku wasa sóor moom mag ña ba léegi xam ne ne wasa sóor ak timiñ timiñ ba léegi da ko daan dégg si ubbeeku kàdd ak ak ak ñoom ñoo gën a gaaw bu dee yow sax da yore moto wala oto di di di dawal bañ oto ba manqué client utal reenu reenu reenu sump bu sax si xorandam rek def ko fa du ko manqué beneen bu si topp bu dee koo xam ne nii garab goo xam ne da koy may kaaraange boo demee si xay da koy def dégg nga boo demee si yeneen garab yoo xam ne ay rey dond yu mel noonu yëpp dafa gaaw lool si kaaraange si xam koo xam ne jàngal neen la garab nga xam lan mooy garab ak nan la ñuy defaree garab mm-hmm. man su ma la sangaree sunguf man maa ngi am sungufu kaaraange goo xam ne ku ko laal ak loxo feebar maanaam dafa doy waar ba ëpp te kenn du ko suuroo lu paase ñetti fan su ma la ko compalee dama boo demee paaka ngay jël di comp di di def si si ànd bi mm-hmm. waaye lépp lu fekk sa yaram ak lëggéey bi lum doy waar doy waar saxar si bu duggee sa yaram mu toj dégg nga moo tax wàllu garab man li ma si xam yem ñi mu ma ko wax xam na garab goo xam ne kanaa xamoo ne tey boo demoon di ko xasi euh, maanaam niñ koy xasee dëgg ñi mu ma ko wax si télé ndax dafa xaw a doy waar waaye boo ko lëggee dëgg nit dikk jox ko nit kooku képp koo dégg ne am na sunguf boobu moytu ko bul ko laal man dam lu tax may ut garab yooyu mooy damay jokkoog ñoo xam ne xam nga tey jii kanaa xamoo moodu moodu yi ñàkkuñ xaalis ñi leen di xeew di leen def nangam di leen sonnal si alal moo tax ñi sonn léegi nag moo moo waral da ngay gis moodu moodu bu la topp naan la kaaraange nangam kaaraange nangam man na ku ma si jox kaaraange ngay doxate di jàmbat kaaraange ñëwal ma delloo la nga utee ji ko lool man maa la ko wàllu garab daal côté boo ñëwee dama dëkk sa digg garab ya xëy takk sama seret gor matt ñëw te nu mu ko bëggee laa koy amee kon foofu àll dëgg la mu ngi ciy sant yàlla bu baax alhamdulilah. Euh, Sonko génnagul kaso ba léegi euh, lan mooy problème bi lu xew ba li Sonko mënuñ koo tëjji mu ñibbi këram. alhamdulilah waaw loolu noonu yëpp buntul la rek ndax euh, Sonko yàlla dafa dogal ne mu ngi si ay tolof tolof mu ngi si loxoy yoon waaye su yàlla dogalee jàmm nu mu war a muccee dana ko muccee ndax mbir mu nekk moom. continuer di ñaan rek comme gëm nga ko bëgg ko del ñaan rek bul xaddi bul découragé ndax nit ku nekk lu la yàlla di jagleel bul ko teel a dagg topp ko ba xam ne nii lii mën a nekk carrément nga soog a jeex ay tolof tolof yu si nekk bëri na waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla fi mu nekk na fa jógee di ñaan yàlla yàlla maye jàmm si si réew mi bu baax a baax ndax euh, jàmm daal mooy lépp te incha allahu rabbi suñu borom dina ko defal sutura te li mu bëgg dina ko am incha kan moo ko xabtal ba mu bëgg xaaru ne boppam. waaw euh, di wax ne Adji Sarr ñi koy jege buñ ko sëri mm-hmm. waaw ndax dafa am yoo xam ne mu ngi si biir yoo xam ne mm-hmm. buñ ko sëree rek mu musiba am waaw ndax dafa am mbir yoo xam ne daal xam nga euh, benn bu njëkk sax mooy ku ñëpp di ku ñëpp tëf li nga tooy te Adji Sarr ñëpp koy tudd te beneen bu si topp daa am yeneen yoo xam ne mu ngi si suuf yoo xam ne mm-hmm. ay mbokkam bu dee si la nekk nañ ko téye rek nañ ko bañ di ko sëri bañ di ko kii ndax yenn saa yi mën na wéet Euh, yenn affaire xew si daal waaw waaye na na nañ ko gën a daral rek incha allahu rabbi euh, yàlla baax na daal euh, lambi Modou Lo ak Ama Baldé lan nga ci gis lamb jooju nag lamb ju bëri tension la waaw alhamdulilah gisuma si dara nag si wàllu kii kii mooy daan ak kee mooy daan ndax sama waajur dafa ne ma bis boo toogee télé na diw mooy am ndam wala diw mooy am ndam boo ñëwee dootoo dellu Dakar te dootoo wax mm-hmm. te kon waxu kilifa dañ koy sàmm mm-hmm. waaye Ama Baldé na gën a góorgóorlu rek mm-hmm. gàllaajam doy na waaye bu amee gàllaaj bis bu bu ñëwee maanaam nu ko neex lay amee waaye làmb jooju ragal naa dana fomm de. Ah, waaw man na man na mën naa xaw a fomm de. waaw am na am na am na yu si de. làmb ji confirmé na pour yàlla baax na xam nga feeg bis ba ñëwut bañ taxaw rek. lu nekk mën na ci am. waaye dafa am yu nekk si suuf daal. yàlla baax na sin borom dina si def sutura incha allah. na euh, sëriñ bi euh, ñu waxtaanee ki nekk Europe bëgg papier. kookee tamit euh, coono dal na ko nan nga ko mën a dimbale ba mu amee kii. man moom damay wax ne. nit ku nekk bitim réew ak ku nekk Sénégal ku mën a doon. nga bëgg kayit soo ñëwee bu ñu waxtaanee ba tënk. toogal déglu ma. man bu ma defee li may def ba noppi. sa kayit yi da nga siy jot jot bu gaaw. jot boo xam ne du ànd ak weerante. waaye nag. su la neexee bu ma lay lëggéeyal nga toog déglu te bul ma fay. waaye su ma ko lëggéeyee ba nga jot fayoo ma. musiba dal la waaw man moom noonu lay waxee ba bu yàlla sàkk damay garante lu may def waaye dama ne ku yor këyit ku ne soo ñëwee toogal déglu bu këyit ba buñ ko defoon sa taatu këyit ya laaluñ ko hmm. su ma defee li may def dañuy xëy rek yoon yónni la message na la kaay jël sa këyit yi hmm. sa këyit yi pare na si kaw nag koo xam ne def nga yoon yi nga war a jaar yëpp pour am këyit hmm. waaye waxuma koo xam ne da ngaa tëdd sa néeg naan bëgg naa këyit da ngay dem defi déposé yëpp ñëw ma ñaanal la mu gaaw soo ko man mën naa la koo garantal incha Serigne Ngombe Seck Saalum Saalum ku ne Saalum Saalum xam ne Saalum Saalum yi dañoo ay ci wàllum rab rab nag jamono ji li muy yàq bari man yi ma siy faj bariwut ba léegi nii mhm. waaw ndax yi ma daan faj bari na waaye ba léegi nii daal mhm. bëgguma képp koo xam ne rab bi dalay daaneel ba nga xam ne da nga yuux bul ma woo mhm. bu dee faru rab laa gi woo ma soo ma woowee li nga yor téye ko su ma la fajee ba nga gis nga fay ma waaye bu dee rab bi dafa lay daaneel ba nga yuuxu bul ma woo bu dee faru rab la wala mu lay mu doon rab boo xam ne téye na jigéen ba tere ko am doom ak yooyu suma ko gëstoo ba xam ne dinaa ko faj rek dinaa la ko fajal waaye bu dee koo xam ne da yor sa doom wala yow sa bopp nga yor rab ba nga xam ne da lay daaneel ba ngay yuuxu di daw bul ma woo du ko faj bu dee rabu cosaan la du ko faj waaye bu dee faru rab la yii di la gàllankoor sa alal dina teree am doom yu mel noonu boo ñëwee maanaam man maane la ñëwal toog dama koy faj ba mu wér nga yëkkati fay ma. leer na incha allahu rabbi bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci improtive di sant yàlla bu baax ñu bëri daañu wax ne tey sëñ bi dafa tàng waaye dañ maa sol loo xam ne kuñ ko sol nga wax. man maa wax ne. Mhm. liñ ma sol kuñ ko sol nga wax. te man maa ne. Mhm. ji nga fii nii fu ne nii fi ma toog. lu waay andeetu lu ne. Mhm. man maa la koy garantal waaw. ndax dafa dama am si lu ma toog ni ma génnee rek xam nga ko. waaw tey tey mbub mu garaaw nga sol. yii mbubu cosaan la. bi fu ko fuñ ko jëlee ba jox ma ko sax su ma la ko waxoon nga ne déedéet. waaye dañ koo jël jox ma ko na ma balaa ngay waxati dara waxal si yuré bi maanaam solal yuré bi génn. te wallaay la xasim lu si laxasu yëpp. yuré bi xooj neen ko si saafara ñeent fukki fan. xooj ko si saafara ñeent fukki fan te tusi bi si boppam. Euh, ku xamtu si xam na fan la joge waaw moo tax euh, moo tax li may wax dama koo xam daal ñi mu ma siy xóot bu baax te kilifa gu ma ko jox nee na ma sol ko wax te ku la xool teeylu la déglu la dina la woo te ku la wax aajoom faju moo tax li may boo gisee may wax lu ma wax ne dama koy garante damaa xam si lu ma ne man li ma ne laa xam maanaam du mystique bu ndaw damaa toog si loo xam ne nii maanaam su ma ko sañoon a wax dëgg mhm. sañ naa di wax ne maanaam soxla bu waay indi te duma ko faj ma bàyyee génn waaw moo tax ñi ngi sant yàlla bu baax di gërëm si ñuy wéy jur ndax dañoo sonn si ñun lool bët bu seen ñi naan sëñ ngóobe jaareel nii ngóobe jaareel ne defal nii defal ne euh, jëlal secret bi defal lii di tëj si néeg di ñuy sol ñi génn di waxtaan ak nit ñi wax dëgg yàlla loolu wéy jur bu baax moo la ko manal te wax dëgg yàlla yàlla dénk nañu wéy jur yu baax ñi ngi siy sant yàlla bu baax di wax ne euh, yaa ñi ngi ñaan si réew mi jàmm ñu ngi ñaan si réew mi jàmm ndax réew mi jàmm moo ko jig te li fi nekk te euh, mystique bi fii dugg si dafa bëri euh, yal na yàlla def jàmm daal yal na yàlla def jàmm kontaan neen bu baax jëri ngeen jëf alhamdulilah ay dégg ngeen Serigne Ngobe Seck Saloum Saloum ni mu tàggatoo tey mu nekkoon waxtaan am solo lool bokk ci li xew ci dëkk bi ñu doon ci leeral waaye leeralaat ci li nga xamante ni mooy aada réew mi di cosaanu réew mi muy gàllaaj ak sunguf euh, reen waaye li nga xamante ni mooy xas ak alxuraan tamit dégg ngeen ni mu ci xuusee ak yim ci leeral ni yii bu ko jëfandikoo képp ku mu ko jox sa aaju mën na caa jaare fajo ay ci numéro téléphone Saloum Saloum baa ngi noonu képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jay Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam